li kulli maqaamin maqaal ndax wax dañuy wax ne ñett la ñett ñett ko war a wax li ngay wax ni nga koy waxe ak fi nga koy waxe kon day mel ne jataay bi li may bëgg a wax mën naa ne lu génn jataa bi la waaye nag itteel gum ma ak ñor gum ñor ñëpp moo tax mënuma ko njàkk wax ndax boo demee ci ibnu duraydin day wax ne lakinnaha nafatu masdurin isa jaasalu xaamun min nawaahiha xama am na loo xam bu feesee sab dënn rek boo xëy génne doo ko tey ndax fan yi shaaiaat yi dafa bari ci réew mi nit ñu bari di wax rawatina ki yëkkati kàddoom duma ko tudd ndax xas ab jullit duma ko def te dañuy wax ne nit bu la defee dañuy wax ne wa in ida kunta akram akramtal karima malaktahu wa in in kunta akramtal la ima kon am na suñ kilifa gu baax goo ko daa firee nit ku baax dis gor boo ko teralee moom ko ab nag boo ko teralee mucc mucc ci ayam mm-hmm. wala mu féttéeru dem waaye loolu amul solo ndax سرين توا ليكو سن برون دفن كن منو هو واني بتشي واحد بتشي جف دولا ما هني أبون كابتن دي توا بي فن الجيم نج فجارة موم فن الجيم نج فجارة موم منو كده را جيم نج جوا موم بابا يلام أحمي في إني أعتزلكم فلم يقاتلوا والخوي إليكم السلام وينك وإن جنحوا للسلم فجنها لها وينك وين تعودوا نعود لو كان موكو خون سين توا loolu moo doon tawqi am mooy bu ngeen defee la ngeen defandoo ñu defaa dañ defandoo kon noonu ko sëriñ mu Ka waxee ci biir mbindu bi rek mooy la leen Serigne Touba léebu bañ demee boo ko delloosi ndax boo seetloo ci biir xasida yi nga xam ne euh, ci bahriyaat yi la da ngay dégg bu buy ñaan suñ borom delloosi ko Sénégal bi laa tax sabubin mbind nii lay wax taw bañ ko saw kon Serigne Touba def fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la mm. def fa dara luñ ko mën a jame def fa dara loo xam ne tubaab mën nañ koo nettali li ginnaaw ndax lépp ñoom bind nañ ko muy lu leer nañ te seen bind yëpp yéem sëñ Tuubaa ci jom ji ak fulla ji ak fit bi ak dëgër gi lañu ñuy kon kooka tuuti na ci nit koo xam ne dafa toog fee waxtu ne muy xool li gën a ñaaw di ko teg ci dëru sëñ Tuubaa te muy loo xam ne nit ñi mën nañ koo saafara seen seen bopp ci benn bi wala ñaari fan waaye nag jàmm bu amee ci réew day am lu koy sàmm mhm. ndax pas-pas bu toll noonu pas-pas yu toll noonu sax laay wax ndax yëmmalu ko Sëriñ Tuubaa mhm. kenn du ko fooyee mhm. ndax bu nit ñi jugee saafaral ko seen bopp lu ne mën na ca juddoo loolu baaxu ci kon moom itam na maandoo buy waxati na wax ci xam na wax ci lam gëm te bàyyi ñi nga xam ne yoonam néew ci ñoom mu maandu ci ñoom liñ mujj wax ci Serigne Touba nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi xamul nu ñu ko nettalee sax ndax man diggu aw ma jotul di ko diglu waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baari di ci jum waaye nam ko waxee demeewul noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu waxoon mm-hmm. waxi wax ju leer nañ na ci koor gi mu fi mujj fekk Saxbaan mm-hmm. tàggooguma Ramadan nuyooguma mm-hmm. koo xam ne Saxbaan Ramadan ñoo lay ñoo lay nuyu rek ku àgg foofa sa digg sa borom tuuti ne ci mbindeef di la wax rawatina ab tubaab ah, te tubaab yi Serigne xam ngeen ne mosu leen a nongul dara ci ci boppam bañ ko bëggee takkal médaille dafa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne ko dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut ndax gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñuy dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal mm-hmm. yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñépp danañ jub ñëpp danañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam àdduna si dana defal ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa bëggoon a jiital ci liñ ñu daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon nga jiital islam bi yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooña mag rafet lu ko ne ah, loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbatikuwaat wax ne dañ laa bëgg a jiital loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci force ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi xam nga loolu lu ko waral da ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee ku ci ànd ak man du doon du doon seen coobare force lay doon mhm. te laa ikraha fi diin mhm. daan te innil kaafiroona illaa fi xurur nee na ñi wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca nar kon Sëñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca dam mhm. koo xam ne gëmoo tasawuf yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotub di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm te xam ne loolu jëm nañ ko ay ay ay fukki fukki fukki fukki at saa suñ xëyee ñu gën a wax ci Sëñ Tuubaa lu ñaaw nit ñi seen positif di gën a wér ci Sëñ Tuubaa seenu dogg ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu seen seenu eh, eh, jaayante ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu kon loolu jëru sax xalaat ku am jot sax mooy nekk ci den digloo ko jéem a xool ca eh, la la ñuy wax ndax loolu amul solo man man de bu ma ñëpp toppoon ñëpp day noppalu ndax du ma ko dégg du ma ko diglu te kenn du ma ko wax lu ma ci dégg rek ci jotaay laa ko déggee te bu ma amee sax bu ma àndee sama sama sama coobar duma ko dégg loolu kon nañ ci na ko ñëpp xamee noonu am murit nag day am fulla wormaal ñam ñam bokkul xalaat te ne ci Sëriñ Tuubaa yem ci eh, mel na Cheikh du Ahad wax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax nee woon na am murit day mel ne ëkk te mel ne xobu garab nee na xobu garab ngelaw lu jug yóbbaale ko mm-hmm. waaye xob ngelaw la ko dugal ca pax ma ne génn waatu ko ca ñun foofu la xooluñu leen xam nañ ne itam li fi suñu pësteef mu ngi wér suñu digg ak Sëñ Tuubaa suñu digg ak Sëñ Tuubaa di di wér di sell muy dëgg muy lu dëggu ci ñun lépp luñ yuutu danañ ko jot lépp luñ luñ dëgmal danañ ko daan ndax waaye ci liñ wees lépp dund nañ ko ci te Sëñ Tuubaa wane na ko te Sëñ Tuubaa mbiram saa su xëyee day gën a jag di gën a baax di gën a defaru loolu nag mbirum suñu borom la ndax yuridu an yutfiu noorallahi bi afwahim loolu wa yaaballahu ak wallahu mutimu nooruhu walaw kariha alkaafiruun kon neexule la waaye mënuñ ci dara saa suñ xëyee di gën a jéem a naxan mbirum suñ Tuubaa dañuy mel na kuy kuy suul kuy suul ker loo gën a jal mu gën a yëkkati ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi